ne ci àll bëgg ya aboori jaal yoonu murid bu doon wii kot baay seex rafaal ku ko amul du connecté cey ma mbokki taalibe yi euh, ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen euh, jox leen seen wàccuwaay bu baax baax te tey tey jii nii ku gis fii sunu teewaay ngeen xam ne bis bu rëy bis boo xamante ne euh, Sénégal yëpp dañ ko doon waajal nga xam ne euh, boobu ba léegi rek ku ne xam ne ne euh, soo xoolee télé yeeg yëpp li ñuy wax mooy lan Tawfekh moo xew la tey Tawfekh nag bi mu xewlee mu ngi tuddee bis bi ndeysaan jaas jaas mi nga xamante ne ndeysaan lépp loo moom mooy bijouterie rek aay na si lool moom mooy jaas kon rek su ko defee rek sama gars yi dañuy ànd ak mën a dugg si biir daal di seetaan Tawfekh Mbaye mu Serigne Saliou mën a interroger gars yi damay ànd ak sama jëne cameraman Seydina Omar kon sama gars yi acca si biir ñu dem Sabalada

comme niñ ko waxee woon rek ndeysaan euh, ñu leen di fàttali rek yéen ngi ànd ak 28 pro si bi nga xam ne Sénégal yëpp ñoo ngi waajal tey jii nag ñoo ngi fii nii si Mbacké théâtre verdict bu nga xam ne euh, Tawfekh Mbaye moo fi def lu am solo lan demee Korité chaque année mu koy def tey jii nag ndeysaan euh, mu def ko tuddee ko ki nga xam ne moom mooy jazz jazz mi nga xamante ne ndeysaan Sénégal yëpp ñoo ngi koy bàyyi xel ci nga xamante ne moom lay def ci wàllum bijouterie jaas bijouterie lañ seet si tey kon duñ def lu dul rek ndeysaan maa nekk sama jinne caméraman ñu ànd ma gis jaas ñu waxtaan ak moom jaas ñoo ñoo lay nuyu. Pape Sow. jaas ñoo lay nuyu. ñu ngi sant baax. ndeysaan ah, mu mel na tey jii nii ah, Tawfekh Mbaye moom mooy ah, amal bis boo xamante ne boobu léegi ñoo ngi koy waaj ndeysaan mu doon sa doomu day doon sa xarit doon sa lépp nga xam ne ku ne xam ne ku tudd jaas tudd tudd Tawfekh nga xam ne maanaam euh, wàllum biscuiterie li liñ si def Sénégal yëpp euh, ñu signé tey jii nii maanaam ban yëg-yëg nga am ban yëg-yëg nga am si bis. waaw bis bi wax dëgg yàlla Tawfekh Mbaye day sama xarit sama doom day sama lépp mu bàyyi ñëpp tuddee ma bis bi moo tax ma ni tey dafa ma waroon fekk ma génn sax mais dama bàyyi lépp li nu mën def naa teew si bis bi. te bis bi wax dëgg yàlla Tawfekh Mbaye day sama nit nekk di koo xamante ni dafa baax si man nekk koo xamante ni si lépp daal kenn mënu ko wax daal. wax dëgg yàlla moo tax euh, ma bàyyi lépp teew si bis bi. waaw mu mel ne jamono jii ñu toll Tawfekh Mbaye si jàmbaaram si liggéeyam bu set su xoolee ku mel ne Dias tuddee ko bis bi maanaam ban yëg nga am ci loolu ak kontaan. waa xanaa am contentement baax a baax rek parce que dafa foor nit ku bàyyi ñëpp gis ñëpp bàyyi leen ñëw ba si yow mu tuddee la bis bi Tawfekh Tawfekh Mbaye comme ni wax sànq rek yàlla dafa def man ak moom suñu xamee yàgg na torop mais wax dëgg yàlla mosuma am si moom déception mu nekk koo xamante ne si daal maanaam wax dëgg yàlla macha allah sama xol instant dafa sedd ba mënuma wax. Thioune ñoo ngi lay nuyu. waaw Mbaye Baye daal maa ngi lay siyaar baax. jërëjëf ah, mu mel ne sa doomu nday Tawfekh Mbaye nga xam ne say say bis wala say cant lu si bëri da si daan ñëw ñëpp boo xam leen tey jii nii mu xew la nga nekkoon Dubaay bàyyi lépp ñëw maanaam ba yëg-yëg nga am si bis bi. waaw yëg-yëg bi ma ci am Tawfekh Mbaye man ak moom démb la woon tey di doog a ñëw looloo tax tey bi mu xewlee ma bàyyi sama yitte jóge Dubaay ñëw Sénégal ndax bis waaw. mu mel na jamono jii ñu toll da nga da nga fee demoon Dubaay ndeysaan di fa def liggéey bu am solo ñu si bari nag jàppoon ne cuun du ñëwaat. fekk na yow cuun dafa demoon ngir liggéey cuun ma demoon ngir liggéey moo ñëwaat doomte doomte day jaabante di dem ak a ñëw waaye ñun li ñu gën a jaaxal euh, jamono ji ñu toll tawfeex ni ngeen mel man bëri na ma ne sab liggéey des na waaye dagg nga lépp ngir tawfeex mbaay ñëw maanaam lan moo dox seen diggante. waaw Tawfekh Mbaye moom li dox suñu diggante man moom bari na comme li nga wax noonu ñu bëri jàpp nañu du ma demee Dubaay du ma ñëwaat mais man Dubaay liggéey moo fi ni muy contrat te du sama contrat jeexee damay ñibbi. parce que Dubaay waroon naa fa am lépp temps bi ma fa def parce que maa waroon am 6 mois laa fa a def waaye doo gisal tax ma ñëw muy làmb ji ma tuddee ak bisu Tawfekh Mbaye bi moo tax ma bàyyi yite a demaat incha allah. day jàppale artistes yi ndax man 28 Pro suuf bi ma njëkk a jël ma ci joué doo xoolee sama théâtre ba ma ci ba ma ci génn boobu kenn xam ma muy théâtre boo xam doo xoolee man a ñett at ci garaw muy bégaay kon 28 Pro dañ koy ñaan a baax na du amoon ñett ñu mel ni moom rek yëpp day baax incha allah cun cun Serigne Jabi la ñuy laaj waa 28 Pro Serigne Jabi. Ah, Serigne Jabi doo ñëwee émission bi naa la ko jox yow ñoo war di nuyu sama la moom dafa baax sama waay boobu la Seydina moom it. kontaan ñoo lay jaajëfal bu baax baax di <laughs> ñu ngi lay fay bu baax a baax di sant bu baax ak di kontaan di kontaan di kontaan lool ñi dellu si waat fii nii fii ci verdi bu Mbàkke di ñëw fekk sunu mag sunu xarit sunu lépp Tawfekh Mbaye ren mu jaaree waat fa ko fa ko jaaree woon daaw ren mu ñëw dégg sama doomu day ma ànd ak moom muy muy Pape Sow Diar day ren ma ñëw man mi ci parrain yi laa bokk waaye ren dama dama dama jël sama bopp ànd dama tey dama ñëw ànd sama sama doomu day Pape Sow jàppale waale ko Ndiaye Lo ñoo ngi ñoo ngi leen ziar baax ñoo ngi leen delloo ziar baax. Ah, mu mel ne sa doomu ndey Tawfekh Mbaye tey moom moo xewle. nga xam ne Ndiaye loo jamono ji ku ko dégg dégg ko si xeetu TikTok ak xeetu YouTube mu si def lu am solo ban yëg nga am si bis bi. waaw kontaan rek kontaan tey dañoo kontaan suñu xol dafa seet sama xarit sama mag moo xewle Tawfekh Mbaye tuddee ko sama xarit sama doomu ndey. Diaz Bijouterie ak Bamba Tall borom TCM ndeysaan sama gars yooyu xam nga bés bu man dama ci tëddee njaaxaanaay ndax bés bu maa ko organisé ba pare bokkaas ñu ko tuddee man dama kontaan naa sama xol dafa seet. ñu lay waa 28 pro. ah waa 28 pro. 28 pro moom ku ne xam na ne mooy site bu baax bi nee naa la bu doon bu doon euh, café. dinaa ne 28 pro foor na fuur na neex na saf na kafe saf jar saf suukar saf xorom bolle ba pare tàng 28 pro fi la affaire yi xayam xayame. jaajëf ñoo ngi ñoo ngi toog euh, jeune bi nga xamante ne ndeysaan la nekk muy Fadal nga xam ne kenn doolu ko présenté si si yiw gi si yaatu gi si tabe gi ndeysaan si maanaam man sa Fadal saa bu ma ko xol day sedd ci waxuma la daal waxuma la liggéey bi muy def si TikTok bi mais maanaam yiw gi mu yiw rek ndeysaan macha allah tey jii mu ñëw. teew fii nii si bisu Tawfekh Mbaye bi euh, Fadal ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi jaar ziar bu wér di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay di wax ne ndeysaan ñoo ngi ñëw fii tey lendemain Korité di sant Serigne Saliou andi ko gaay vraiment comme nag ni nga ko waxee moom vraiment dama naan lépp rek yéen a quoi parce que yéen a baax tey su liggéey bi ak daanaka nag lépp yéen dañ koy teg seen loxo. ana maanaam euh, baax yaay ban mbégte ak kontaan la am euh, si bisu Tawfekh Mbaye bi. ah waaw xanaa am mbégte contentement parce que gis nga li fi daje yëpp yaakaar naa ñun ñëpp ko koo si xar sa xol Serigne Saliou nga ci fekk te li ñu fi woote mooy sant Serigne Saliou bëgg Serigne Saliou yëg Serigne Saliou moom lañ fi woote moo tax bu ñu wootee dañuy bàyyi lépp ñëw te Tawfekh Mbaye daa nekk koo xamante ni dafa baax nekk koo xamante ni nii doomi réew mi la donc duñ def lu mën a ñëw jàppale ko bàyyi suñu nelaw lépp ñëw ci li nga xamante ni mooy guddi gi ndax Tawfekh Mbaye comme ni ma la ko waxee moom moom ku ne gis na li muy liggéey ku ne gis na li nga xamante ni mi koy évoluer ci li nga xam ne mooy diine ji donc bu wootee duñu def lu dul bàyyi lépp rek ñëw waaw ñoo ngi jàkkaaroog sëñ Fallou borom tableau nga xam ne tey jii nii taw Tawfekh Mbaye euh, keroog ba muy euh, kii euh, ba muy def Sorano ji sëñ Fallou bi moom moo ko defaraloon tableau bi fo ca Sorano nga xam ne Sénégal yëpp ñoo ngi koy bàyyi xel muy sëñ Fallou sëñ Fallou ñoo lay nuyu waaw Baye Dame ñu mbaa yaa ngi nag jàmm naka taw feex yi mboolem ñi fi teew maa di am mbégte bu baax a baax ci teew fii ci wérdi bu Mbàkke ndax yaakaar naa ay weer yi la jàll defoon nañ ko suraanoo te taw feex Mbàkke dafa doon nit ku baax wax dëgg yàlla table bi mu am nag maa ko defal moo tax ñaare fu muy dëgg moom wax dëgg yàlla bee moom wax dëgg yàlla dañu koy may daal waaw moom daal nit ku baax la daal wax dëgg yàlla moo tax ñu am mbégte maanaam di di teew fii. Thank you. delloo njukkal sunu sang ba Serigne Béthio Mame Mbaye Thiam jaamu Serigne Saliou Mbacke nga xam ne lu nu am rek ak lu nu mel rek moom la

Muhammad